gannaaw man wér rek laa bëgg. ngañkan ngañkan la tudd. man gannaaw wér rek laa bëgg liggéey tu ma def man dara jëtaat jëtaat gi nii maa ngi nii toog di xoole maa ngi nii sama may bëgg a dee sama tàngoor xaw ma lan moo ma dal. ku ma dimbali rek laa bëgg ku ma dimbali rek sama yaay ji dama ko war a teral ku ma dimbali ma yaay rek laa bëgg ku ma dimbali ma teral sama yaay rek laa bëgg sama yaay sonn na ci man dërëb sonn ma fële Som jag gjorde på det, som jag gjorde mig på det, som jag använde mig på det, på det, på det, på det, på det, på det. På det, som jag använde mig på det, på det, på det. Dina wér léegi man bëgguma dara bëgguma dara man rek man bëgguma yàlla ba sama doom ji wér ndax tey mi ngi gaara liggéeyam ñetti at yàlla mi ngi ni permis bi ngi ni oto la yoroon liggéey te liggéeyam ci lañ ma ci la ma yoroon yor sama njaboot jabaram a nga ca kër ga mm-hmm. amatuñu lu ñu lekk amatuñu lu ñu naan amuñu fuñ dëkk fuñ dëkk ñu génne ñu fuñ dëkk ñu génne ñu ndax amuñu lu ñu fayee bu ñu am ñaari weer ñu génne fu ñu am ñetti weer ñu génne ñu daanaka bay ba ti awoon pal dajal nan ko fi mu ne amu fu ma dëkk fi ma dëkk nii dañ ma ko abale borom barki démb la ñëw ni ma borom day bëgg a ñëw dañuy commencé waat liggéey bi kër gu doy waar ci laa dëkk ku ma jàppale rek te yàlla tax ba sama doom ji wér ak jàmm rek laa bëgg permis baa ngi nii da doon liggéey gëj naa liggéey te la ma yoroon ndax dañoo dox ba dajal wër nañ ba dajal amuñu fenn fuñ jëm te dañoo xawuta kii doy waar lool nag man rek man rek ak moom ak jabaram ñoo dëkk mu doy waar trop amatuma fu ma dëkk tànk bi dikkal ma coono dikkal ma lu yaa sonal ma bu ma lekkee damaa lay béton bu ma layul béton jaay du ma lekk amul ma lekk amul ma naan su fay lu yaas doo mën a dem ñetti at yàlla xam nga ne mënu ma génn di lay béton mënu maa dem fenn mhm. man fóotaan naa lu dugg naa ci liggéey buy bu jigéen rek ci dugg naa 2003 ba ma fi duggee ba léegi fóotaan naa jaay naa cere lu ne dugg naa ci lu ne ba ci lay béton bii ci laa mujj fi mu ne nag mënatumaa dem ndax su ma demee ñu woo ma su ma demee ñu woo ma jabar ji woo ma ni ma ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ma ñëw fi mu ne nag dama sonn damaa dajal ku ma dimbali rek ngir yàlla ak yonante ba billaahi te yàlla tax moom laa bëgg ba sama doom ji jóg ak jàmm. tënk la ba mën a wuti loolu lépp nooy dundee ak jafe-jafe sonn rek coono rek coono rek laay dundee ndax fi mu nekk nii damay woor ba ngoon sax métit bi ñëw mu yuuxu doo mën a ndog doo mën a naan kafe doo mën a def dara yenn saa yi sax duma am far lu ma maa ngi ci coono bu méttee méttee méttee méttee ku ma dimbale rek te yàlla tax laa bëgg sama doom jóg ak ndax moo daan liggéey di ma jàppale ah, léegi liggéeyatul mënu maa dem ma fu ma jëm sama sama waajur dañoo teel a génn àddina dañoo teel a génn àddina kon ñoo ma daan jàppale dañoo teel a génn àddina aw ma lu du sama doom yi nag aw ma mag ju ma bokkal benn ndey aw ma mag ju ma bokkal aw ma nijaay ji bokkal sama yaay benn ndey yàlla rek laa yaakaar ak yonente ba xanaa moom mi doomi baayam jii nga xam ne moo ñu andi fii bayalu ko lenn moo ko jàngal métier ànd ak xaritam ñoom rek laa yaakaar tey bi nga xam ne maa ngi bëgg sonn naa ba maa ngi yegg naa kàkkoo ji ñoom a jël indi ma fii di ma dimbala rek ngir yàlla te yàlla tax sànq nga ni bu fekkee layoo béton sa njaboot duñu lekk billaahi bu ma layul béton du ma lekk dama daan fóoti mënatumaa fóoti léegi dem ci layum béton laa nekk léegi suma layee béton yenn saa yi ma am fu ma ko jaayee yenn saa yi du ma am fu ma ko jaayee te bu jarul du ma mën a lekk du ma mën a naan te xam nga jamono ji buñ la yaakaariwul dara koo leb mu lànk koo leb mu ne la awma lu ma la lebal da ngay xala toog bu xale yi jooy nga teg cin li ci kaw fourne bi ndox mi tàng bu ñu nelawee rek ma teggi cin li ndax amul lu ma ci def kon ci biir koor gi am na ci bis yoo xam ne nga woor ko ba ngoon amaloo ndogu. yàlla xam na ko ne Serigne Babacar xam na ne woor naa weeru koor ba nii li ma ndogu matul ñaar yoon baa ñetti yoon ba bii ci mujj jaaruma ci ndogu jaaruma ci kafe waaw ba bii ci mujj bii gii woor naa ba ngoon jaaruma ci ndogu jaaruma ci naanum kafe jaaruma ci lenn ngir yàlla sama doom jii rek man daal jàppale leen ma sama doom ji wér ak jàmm aw ma fu ma dëkk borom kër gi ñëw taxawu ma daf ma ko abaloon waaye léegi nee na maçon yi dañuy ñëw dañuy liggéey ndax borom kër gi nekku fi dafa ne ci kaw nee na ne maçon yi commencé waat liggéey fi mu ne ni jaaxle ci sama doom ji ci lu may dundee jaaxle fu ma dëkk yooyu yëpp te jaaxle yu daje ci moom Dakar Buzz li may wax rek ñaan na yàlla ku fi ñëw su mënta faj sa jaaxle it lim ci mën ci këmtulaay kàttanam mu def ko ci di leen ci yaakaar yéen jaamu yàlla yi. looloo tax tam kaa bi mun na koo mun jéem ñu jël ko ci moment yu metti moment yu difficile yoo xam ne bi mu dikkee bu ngeen xoolee ba nga ci buntu bureau bi parce que cas bi tolloon na fa xam ne mënuñu ko jël di ko yéegal ci biir pour tourner ko ñu tourner ko ci anam yu metti ci anam yoo xam ne képp kuy yërëm rek xam nga ne kii ñuy tournel vidéo bi mi ngi ci ay métti mi ngi ci ay jafe mais sant yàlla rek ba buñ ko dugalee ngeen gis ni ngeen réagir Dakar Buzz nag lam ci doon ñaan am na parce que Dakar Buzz bi mu koy tourné démb joxoon nañ ko démb saaku ceeb ak diwlin ak suukar ak tàndarma ak quarante mille parce que Dakar Buzz bëggul wax ak malaat bàyyi ko mu dem mu néew mu bari dina ci tàbbal ñaqam liñ doon ñaan mu barkeel barkeel na ba jur six million trois cent cinquante mille six million trois cent quarante mille moom laa téye nii mi six millions trois cent quarante mille loolu nag buñ ko mënee am yéen la yéen bonne volonté yi nga xam ne kenn ku ne xañ na njabootam kenn ku ne xañ na ak famem kenn ku ne xañ na boppam jooy ngir yónnee ngañ ci li nga xam ne moom la war a fajoo di ci ñaanal tam képp koo xam def nga ci sa ñaq yàlla fay la yàlla taxaw leen yàlla jàmmal leen ndax dimbale ku jaaxle dara féetewu ko kaw te ngañ bi muy ñëw demb ànd ak wéy juróom wi ak bokkam yi démb jaaxle woon nañ lool ci moment yu métti ci moment yu difficile waaye sant yàlla ba bi ngeen réagir ba 6 millions 340 mille ne fi kon suñu 40 mille yi jur na 6 millions 300 mille kon loolu yéen la dañuy ñëw nag pour cant rek gërëm wan leen ni liggéey bi fii la toll ndax nit dafay bëgg bu yónnee 100 francs mu xam ndax li mu yónnee yegsi na ñu xam loo leen di xamal ne kon lu waay yónnee rek mu ngi ci 6 millions 340 mille dem bi ngay ñëw Dakar Buzz metti na jaaxle woon nga différence su démb ak tey. waaw sant maa ngi ñaan ko ma jàppale yàlla na yàlla jàppale maa ngi maa ngi ñaanal Sénégal àdduna maa ngi sant yàlla bu wér di sant ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp di la sant yow mi ngi bu dul woon ak yow heure bi mënoon na ma fekk ci bàmmeel te man loolu laa yaakaaroon maa lay di la gërëm di la ñaanal yàlla boo jublu yàlla na fi yàlla jëpp maa lay bàyyi yàlla yàlla na am fay yàlla na fay maa ngi lay bàyyi yàlla maa ngi ñaan yàlla suñu borom képp ku ci tabal sa mais sa digganteeg sa waajur sa yaay coono yim daj ngir yow. bu wér a wér a wér maa ko xañ lépp addunaam yëpp maa ko xañ yëpp maa ko xañ maa ngi ñaan yàlla ma dem ba taxaw ko ni ma taxawoo aw ma fayam yàlla ko yàlla fay yàlla mi am fay yàlla ko yàlla fay. la jàppale ba mën a dajale six millions trois cent quarante mille. ñooñu maa ngi yàlla suñu borom yàlla mi am fay yàlla leen fay waaw. taxawaayu Dakar Buzz ba tey loolu moo jur tey six million trois cent quarante mille te bi ngay dikk Dakar Buzz jaaxle nga ci moment yoo xam ne yaakaar naa ni metti woon na trop. trop trop trop mais di leen sant rek di leen yàlla suñu borom xëy na foofu la ko yàlla dogalee woon. liñ bëgg yàlla nañ ci yàlla wut yàlla nañ ci jot. dem bi nga jógee hôpital nelaw ma. waaw moom daanaka léegi laa yeewu sax daanaka léegi laa daanaka léegi laa yeewu. te gëj nga yàgg na daanaka ñetti gi nii waaw. sa digganteeg sa soxna ndax yor malaat mu mel nii moom it muy xale mu toog di ko gérer nan na ngay dund ak sa soxna waaye sa soxna ci yow. jàmbaar la trop muñ na guddi muñ na bëccëg waaw muñ na guddi muñ na bëccëg xamul lu ma am xamul lu ma ñàkk depuis bañ ma sama mag bi indilee ba tey ci li bëgg rek lay daw te bu ko neexoon mënoon na ba ma tëddee mënoon naa dem yoonam mais def ko dafa ànd ak ngoram. muñ ta xam la ko fi indi maa ngi koy ñaanal daal maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax waaw maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax li muñ yàlla na ko ay doom muñ yàlla na ko ay njabootam muñ jërëjëf mbokk internet yu dakaar Buzz ñu ngi leen di nuy nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla ci ni ngeen ñuy toppee seen émission bu mag bii di Dakar Buzz social di gërëm ñi ni bàyyi xel ñëpp moo xam ñi nekk fii ci réew mi di gërëm tam ñi ni bàyyi xel moo xam ñi nekk bitim réew tàmbalee ko ci bon volonté yëpp ki yónnee ñaar fukk ba ki yónnee téeméer ba ki yónnee lu ko ëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm group yi Dakar Buzz social ànd taxaw ñu wérati ñoom seen Jili Ndiaye seen Maam Mor seen Xaadim soxna su Ngom mu borom daaru ak soxna Lima ak Baye Saliou di gërëm tam waa xelu Africa ñoom soxna Ndeye Tall di ci nekk li ci liggéey liggéey bu am solo foofu ci Amérique ñu samay nit di jàppale Fadel ci social bi kon euh, waa Hello Africa ñu ngi leen di nuy bu baax di nuy ñi niy seetaan ñëpp bon volonté yi suma rakk Mouhamed Amar Girif Sougou Khadim et tant d'autres soxna Awa Top Ndeye Absa Lo madame Coulibaly bari nan képp koo xam ne yaa ngi suivre Dakar Buzz social rek ñu ngi lay sant di la gërëm di wax gis nañ ni ngeen nuy ñaanalee lu mel ñaanal yàlla nañu ko bokk di wax ni euh, Dakar Buzz Social dañ ci gën a bàyyi xel a ci te xam ne lu baax rek la ci la nekk ak njëriñu réew mi xool li nga xam ne ay jafe-jafe la doomu aadama yi di ko dund mu fexe ba sol dàllam dem fa ngir solution ma a am jëli woon naa fi benn cas ci koor gi muy kaaw ngañ dekkoon kaa bu marqué nit ñi bi ma ko jëlee itam à travers Dakar Buzz Social nit ñi doon ko jàppale doon ko jàppale euh, wax dëgg yàlla ba gis ngeen vidéo ma ci mujjoon a def demoon fa joxoon ko demoon fa dajale moom ak moom 6 millions yoo xam ne ki ni defoon numéro moom moo ko dajale woon ñoo joxoon ko nga xam ne mooy yaayu ngañ biñ fa jógee tam yokkuwaat na yokkuwaat na ba macha allah am na lu ci bari lu ci teguwaat li doon base vidéo bi nag moom mooy tawat bi ngañ tawatoon tànk bi doon metti mu bëggoon ko ko dimbali ñëwoon ci moment yu difficile ñëwoon ci moment yu metti yoo xam ne toujours ma ko pour ma tourner vidéo bi rek xawoon na indi problème parce que dañu mujj tourner ko ci biir bi parce que metti woon na te bi muy ñëw yaayam jaaxle woon na. waaw bi yàlla defee vidéo bi dugg nag nit ñi jàppale ko li mu doon bëgg nag mooy faju waaye nit ku nekk ak suñu borom di jaarale ci sa wér-gu-yaram ngañ faju na macha allah waaye li dugg ci biir faj gi mooy que ni dem nan ba euh, amputé tànk bi muy sant yàlla ndax suñu borom moo dogaloon ni ak wéram foofu lay jaar te peut-être loolu moo gën ndax amaana bu mun bàyyi woon noonu continuer faj gi rek bañ a def loolu mën naa yéeg jur leneen te lu ci ëpp solo mooy wér gi te ngañ wér na mu ngi sant yàlla. loolu nag bu buñ ko mënee dañ ci sant yàlla pare julli ci yonent bi waaye di ko sant yéen bon volonté yi nga xam ne yéenay dimbali nit ñi ndax Fadel li mu man mooy wane wax ñaan dimbal yàlla duñ suturaal nag ba bu ñu waxee am ñenn ñoo xam ne jàpp nañ ni ñu ngi ni bàyyi xel di leen dimbali ki ni ñaanal ndimbal moo ci gërëm képp koo xam ne tàbbal nga sa ñaq ci ñang maa ngi ñaan suñu borom mi am fay fay la mënumaa lim ñëpp waaye ñu jëf bari nañ àdduna bi yëpp jëf nañ ci ngaaj moo xam ku nu état de santé fii la toll leneen li ci dolleekuwaat tam muy goo xam ne tam yaakaar naa képp ku gis vidéo bi tey di nga ci am mbégte mooy que ni yaayam waxoon na ci vidéo bi fi mu dëkkoon dañ ko ko abal borom kër gaa ngi ko teg pression ci damay soxla kër ndax maçon yi dañuy yeggale waaye di gërëm borom kër gi parce que borom kër gi tam bu wante fan la sax abal nag ko yaayam mu dëkk fa kon ñu ngi lay gërëm donte xamuñu la yow tam di ñaan yàlla defal la jàmm su defal la sutura ndax ku suturaal yàlla yàlla suturaal la li ci dolleekuwaat wax naa ko léegi mooy ngañ fexe nan ba utal koo xam ne fii la dëkk mook yaayam ñu dëkk fi ci li nga xam ne nag moom mooy xéewal gi doon jógee ci wàcc pour ñëw pour mu faju jëndaale na ci kër parce que li ma naan toujours rek xamal li ngay tàmbali waaye bul xam li muy jur te suñu borom moom mooy baaxal kon sunu borom baaxal na ko ba am na ci màkkaan boo xam ne mooy fii ñu toog di ko tourné jënd na ci kër li des nag mooy wan leen ko ndax nit kat dafay bëgg bu yónnee ñaar fukk xam fan la mujj Dakar Buzz li may wax rek liggéey bu mu ci song rek daf koy def ci anam bu set anam bu leer anam boo xam ne kenn ku ne di nga xam ne fii laa yónnee fii la mucc moo tax ñu solaat suñu daal ñëwaat tey fii toogaat ak yaayam toogaat ak ngañ la ca dolleeku nag damay bàyyi yaayam mu nuyu cant ñu door a jëm ci ngañ waaye cant gi moom ci man lay njëkk a tàmbalee jëm ci yéen ndax ku sant nit sant yàlla Mère Diagne ñuy naan. waaw ngi lay fay. Mère Diagne da gën a leer léegi sax. <laughs> ah ah nu may <laughs> ngi lay fay maa ngi lay. gisee nga naa ma da sonn naa jaaxle tey nga xaw a leer ni macha keroog jaaxle naa sonn naa tiit naa jàq naa ndax boobu sa ak sama sago xama ci lu ma nekk waaw waaye maa ngi sant yàlla sant yonent bi sant sëriñ Babacar maa ngi lay sant bu baax sant naa bu baax a baax a baax a baax ah maa ngi lay ñaanal fa nga bëgg a yegg yàlla fa yàlla eggale yàlla na yàlla may fan guddeeg wér ak bépp jullit bu la ko yéene maa ngi sant euh, public bi bon volonté bi nga xam ne ñoo jàppale sama doom ji ba yàlla dogal mu si fii maa ngi leen di sant leen gërëm cant goo xam ne am na commencement waaye amul yemukaay jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf li ma doon ñaan Serigne Babacar lépp yàlla def na ko maa ngi sant yàlla bu baax sant na yàlla sant naa yàlla ci tànk bi yàlla def na ci jàmm ak salaam yàlla def naa léegi faju bi am na maanaa am na solo ndax faj bi faj bi baax na trop waaw ah, faj bi baax na trop faju na ah ba desal na ci loo am na ci màkkaan léegi nag màkkaan bi mooy fii ñu toog di fi tourner vidéo bi liggéey bi nag moo xaw a des tuuti rek ah ma di leen doole tàllal loxo di leen doole sant daal waaw di leen doole wax ni ah liggéey bi daal moo des fi mu nekk waaye waaye ku ci mën a jàpp daal te yàlla tax ci barke Sëriñ Babacar nga gën cee jàpp ñu jàpp ci bu baax a baax a baax a baax maa ngi sant ñëpp maa ngi sant Fadel maa ngi sant Abdou joom mi nga xam ne moom laa àndaloon di tourner vidéo bi maa ngi sant bépp doom aadama boo xam ne sa dërëm dem na ci sant naa leen bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf. Euh, mère ma ñu tourné vidéo bi ma fay mujj indi woon naa bu ma juumul compté woon nañ six millions et quelque. ma tegoon ko sa loxo. six millions yoo xam ne du fàtte la ko dajale yow yéen ko dajale woon. Euh, bi ñu ko yéen ko dajalee bi ñu ñibbee dafa mel ni sii millions yi juraat na leneen. juraat na leneen leneen lim juraat ci lañ jënd màkkaan mi ci lim juraat ci lañ jënd màkkaan mi faj ci tànk bi ba tànk bi. presque daal weer na fi mu ni ñu ngi sant yàlla bu baax. léegi boo ma doon xaymal nañ li mu jot ci xaalis lépp ci million à peu près ñaata lay doon. ah million yi moom xaw naa takk moom wax dëgg yàlla ndaxte faj nañ ci tànk liñ ci faj tànk bi ah liñ ci faj tànk bi daal takku na te kër gi maa ko jëndee 6 millions. kër gi 6 laa ko jëndee nii fii ñu toog nii maa ngi ko jëndee 6 millions te ci laa faj tànk bi si eh, jënd ci ay ay ciment bi nag moo xaw a manqué tuuti ak fer yi waaw. waaw sànq rek kii mi ngi naan ma à peu près bi vidéo bi duggee bu li ngeen daje lépp après mat na 10 millions. bu ko ëpput. bu ko ëppul moom mat na ko moom bu ko ëppul moom mat na ko moom dëgg yàlla. te loolu lépp jaamu yàlla yi ñoo ko. lépp jaamu yàlla yi ñoo ko fi indi ak euh, nuñ ko waxee sax jaamu yàlla yi daal ñoo. jàppale bonne volonté yi yi ñoo jàppale ngañ ba loolu yëpp am. mu mel ne kon 40 mille Dakar Buzz ya barkeel na 40 mille lu jur 10 millions. ah barkeel na moom barkeel na moom barkeel na moom bu baax a baax a baax a baax moom. maa ngi sant ka saako ceeb ak euh, saako ceeb ak diwlin 5 litres diwlin ak kees suukar ak tandarma. jërë ngeen jëf maa ngi sant yàlla bu baax bon volonté. Fadel lépp moom la gannaaw ba yàlla yonent bi wéyee lépp moom la ndax ci loxoom la jaar ci loxoom daal ci barkeem daal la jaar. ci barkeem daal la jaar ndax man bu doon man donc man aw ma benn confiance boo xam ne mën na maa génnee juróomi dërëm yu mat wax dëgg yàlla kon damay sant yàlla sant yonente ba sant Serigne Babacar maa ngi sant Serigne Babacar ak képp kuy taalibe Serigne Babacar ak képp kuy taalibe Serigne Touba maa ngi sant ñëpp ñëpp maa ngi leen di sant ñëpp rek ndax ngaañ am na ñu ko dimbali sax ñoo xam ne nekkuñu ay jullit nekkuñu ay jullit waaye li ñu nekk seen diine la ndax seen diine boobu ci la ñuy seen diine boobu baax na ndaxte ñoom ñoom ñoo jaxasoo ñoom ñoom ñoo ànd fu ñu jëm ñoom ñoom ñoo ànd lu nekk lu ñu nekk ñun ñoom ña nga ca te koy seet sax ne ñoo cay ëppale wax dëgg yàlla maa ngi sant ñëpp sant naa doom aadama yépp daal sa ñëw keroog ba ak sama ñëw bii de daa mel ne wut. ah sa ñëw keroog ba moom <laughs> sama ñëw bii moom ah. sama ñëw boobu mu ànd ma est-ce que sax ah, <laughs> est-ce que sël mu ma sël mu naa. ci biir oto bi nga nga uuf ngañ muy jooy ngay jooy ñëpp di jooy. oto bi chauffeur yi ngi nii kay moom wax dëgg yàlla keroog sonn naa trop. sonn naa lool waaye maa ngi sant yàlla bu baax sant naa yàlla bu baax jërëjëf sant yàlla li may wax rek xam di bu nu jëlee nit mu ne ci jafe-jafe ba yàlla def ci tawféex dañuy li ñuy yëg sunu xol ñoo yàlla rek koy xam bu ñu seyoon kenn du am problème waaye mënta ñàkk ci dund ki boo dee dund moom di am lu neex faaw nga am la naqari waaye sant yàlla ndax yàlla moom kum nax dafay du liggéey loo waaye cant gépp dama koy dëxëñ jox ko bonne volonté yi ak bés bi nga xam ne yitteem yëpp mooy ku ne am ci ne si jàmm. nga nga ñu ngi daal. maa ngi lay ah, tey moom moom moom xéwale na ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent maa ngi gërëm samay waajur di sant bu baax di leen ñaan yàlla bàyyi leen sama kanam ba ci kanamu kanam maa ngi sant ñëpp na di sant bonne volontaire yëpp waaw métti woon na trop waaye jàpp nañu bu baax a baax a baax a baax a baax ginnaaw ma sant yàlla ba léegi moom maa ngi ak salaam. ana bi. permis bi mi ngi fi mi ngi fi permis bi mi ngi <laughs> permis baa ngi bi ba léegi nii sax mi ngi fi mi ngi fi waaw. permis baa ngi fi waaw. maa ngi sant yàlla kay bu baax wax dëgg yàlla. mais taxawaayu nit ñi ci yow parce que sa cas dugg Dakar Buzz kenn ku ne jël ko def ko yëfam kenn ku ne jàpp ne yow yéen a bokk ndey ak baay euh, kenn lekkul kenn naanul kenn nelawul. su ma rap ngi rappelé wu koor gi ma ñëwee koor gi bi ñëwee ñu dem sétuwoo ci guddi gi ah va et lépp kenn ku ne rek yitte mooy ngañ jóg. métti na trop métti na trop mais yàlla na si jàmm maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa clinique Camara waaw docteur Camara. maa xarit nit ku baax maa ngi leen di sant bu baax maa ngi koy sant bu baax. waaw di sant ñëpp di sant ay employé am ñëpp ay ñoom Maymuna Mariama ñoom ñëpp maa ngi leen di sant wax dëgg yàlla am nañ ma di ak salaam wax dëgg yàlla amu fa benn problème. lan ngay wax bonne volonté itam yu la yónnee seen xaalis ba tey lii mën am ba nga mën a faju ba jënd këru 6 million lan ngay wax ñi def loolu. maa ngi leen di sant di leen gërëm kër bu baax a baax a baax waaw yi ma nekkaloon. waa 74 81 69 61 ñëpp daal ba ci 34 32 ñoom ñëpp ma afti daal maa ngi sant afti daal ñëpp maa leen di sant di leen gërëm di leen tàllalaat loxo nag waaw di leen wax lu ma ci waay jàppale rek ma eggale waaw. taxawaayu Dakar Buzz ci yow parce que Dakar Buzz joxoon na la 40 mille ak saako ceeb suukar ak tàndarma ak diwlin mu mel ni loolu barkeel na moo jur lii. barkeel na trop sax barkeel na trop. barkel na ba mel ni dugub buñ ji fépp dugub buñ ji war na yàlla barkel na trop barkel na waaw barkel na trop maa leen sant bu baax di la gërëm war na yàlla waaw war na yàlla bilaay walaay loolu nit ñu wax de maa ngi sant ñëpp nag waaw surtout Maguette Kane maa ngi koy sant bu baax moom mi ngi ma woowee woon pan Canada waaw maa ngi koy sant bu baax di ko wax sama xel jógut ci moom di sant ñëpp am na transporteur yu nekk caaro euh, yi ñu ko demee ay Baye Mbaalo Dieng ñoom ay Pape Seck ñoom ñëpp maa ngi leen di sant daal bari na transporteur yoo xam xaw ma seen tur mais maa ngi leen di sant di leen gërëm ay Seye Ndiaye Tira affaire yëpp maa ngi leen di sant waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ay Bada Mbodj ñoom ñëpp def nañ seen loxo waaw waa Kajoor yi transporteur yi Kajoor yi ma ngéewul ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn Barra Seck sama grand frère maa ngi koy nuyu di ko sant wax dëgg yàlla am jàppale na ma waaw ñu bëree bëri. dinaa la ko laajaat taxawaayu sa yaay ci yow ba mu méttee moom nga gis ba léegi moom moo mu taxawaat. ba tey kay ba tey moom laa gis moom wax dëgg yàlla ba tey maa ngi koy sant di ko gërëm foo ñaa yàlla bàyyi ko sama kanam ba ci kanam kanam yàggal taxawaayam ba ci ak mboolem jullit di sant ñëpp di sant samay doom bàyyi di sant ñëpp waaw askan bi yëpp daal maa leen di sant ñëpp daal maa leen di sant waaw yaa ngi lekk léegi. waaw maa ngi lekk naa kër gi nag lekk fi léegi luñ lekk luñ togg luñ togg nga ni ko. lu ah, luñ togg kay luñ moom man lekk ko wax dëgg yàlla. ba ngay dégg. <laughs> Ah, waaw toll nay temps moom moom moom benn kudd mënuma koo sex. wóor waaw du ma nelaw guddi du ma nelaw bëccëg benn kudd mënuma ko lekk. bilaay wallaay métti woon trop mais sant yàlla daal. jàpp nañu bari nañu la doon ñaanal te xamoo leen. waaw bari na bari na bari na Sénégal gépp koy ba ci Afrique sax laay wax kay Afrique kay laay wax waaw monde ñëpp ñëpp ñëpp di woote di ñaan ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp surtout kooku ma lay wax noonu wana ma ñetti yoon di jooy Maguette kan moomu noonu waa am na ay commerçant yu jóge woon Dubaay yóbbante woon seen seen xewal maa leen di sant bu baax waaw seen tur nag laay fàtte ak waa association bi dëkk Sangalkam ñoom ñoo ma joxoon teegaale bii sax si waaw ñoom ñoo ma ko jox waaw. rafetaaymaa bi jeexagul rafetaaymaa moom wax dëgg yàlla am jeexagul. teegaale bii lañ ma joxoon xale bu baax sax moom ma ko jox wax dëgg yàlla waaw. <laughs> Ah. benn xale bu jigéen bi ñuy wax soxna waalo dafay indi woon ay ay ay xéewal moo ko joxoon tengaade bii mu ngi ciy gis boppam bu baax nag waaw soxna waalo ñoo ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla sa taxawaay yàgg yàlla na yàlla may fan gudd ak wér waaw képp ku fi indi eh, sa social daal gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp rek monde bi yëpp monde entier yëpp ñaan maa ngi leen di ñaanal yàlla seen taxawaay yàgg jërë ngeen jëf. amiin sant rek ak mbégte di wax nag eh, yëf yi fii la toll ngañ faju na ba fii la état de santé am toll di gërëmaat ñi si jàpp ñëpp di waxaat képp koo xam ne rek mën nga ci gën a jàpp ci lu wàllu lu eggale kër gi ndax jënd nañ kër gi 6 millions. commencé waaye ku ne xam ne ne batiment dafa metti dafa laaj ay moyens ñu ciy tàllal loxo jaamu yàlla yi bëgg nañ ku am tonne ciment ku am fer ku am suuf ku am tam xéewal goo mën a yónnee numéro yaayam dañ ko ci defaat ci baaru écran bi lu waay yónnee mën ko cee def mu jëm ci moom ñu xam ni ndimbal du jeex waaw ah, ndax li may wax rek Dakar Buzz bi muy tàmbali bi muy tàmbali dafa tàmbali woon pour tànk ngañ li ma naan nag tànk ngañ dem na ba loolu saafarawu na li des nag mooy. yàlla dibbali na ba yàqul li fi ñëw ci xéewal yàqul faju na ci def na ci farat ndax ki laabal këram moom abal de taa fu muy am fii mu def fi ñaari sëngalam sax di fi dëkk mooy gën foofu noonu laabal yàlla def na nag ba def na ci farat jënd na fii ak 6 million des nag mooy mu ngi ci chantier yi ñu ngi tàllalaat loxo jaamu yàlla yi lu waaye mën ci lu baax nga def ko ci te xam ko dimbali yàlla lay ah waaw ku ma dimbali ku rek yàlla moom moo lay fay de maa ngi tàllal ñëpp loxo daal sama mbokki chauffeurs yi transporteurs yi bàyyiwuma kenn lépp lu ma waaye mën a jàppalee daal maa lay tàllal loxo waaw ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw soxna taxawaay soxna si yow. waaw soxna si moom aw ma fayam daal parce que daal mën naa ni mbawar daal mbawar daal aw ma seen fay waaw parce que mbawar daal ma ko lañ ma koy joxee mu ñëw fii mais xam nga da bëgg a jox yi fii waa Mbor. waa <laughs> Mbor moom maa leen di sant bu baax a baax a baax kooku Jóob ak Njaaxara ak yëpp maa leen di sant Kébé maire. waaw ba Ngumba Ngéwul ñoom ñëpp maa leen di sant. waaw waaw monde entier. nag rek ah, ah tey boo gisee tey dimension bi nga tolloon mu metti woon. jaxasoo woon lool tey yàlla def sutura tey bari toog di ko waxtaanee nii te lu ci bëri waxoon naa la ko nanu sant yàlla te xam ne lépp ci lu baax lay mujj tey lan ngay yëg. sant naa ñëpp maa ngi sant ñëpp moom wax dëgg yàlla sant na sant gi mu am na commencement waaye amul yemukaay maa ngi sant sama doom yi ma àndal ah kii ñuy wax maalik ak mbenn maa ngi leen di sant bu baax maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax ñoo ngañ ñoo bokk ndey baay ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ak benn magam bu jigéen bu nekk ba bari ki dem bi la ñibbi xam naa tey da jàpp waaye kon dana fekk si taxawaay bi maa ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di leen wax ne nag ah xale yaa ngi noonu daal ci seen loxo man daal lépp loo xam ne nii am naa ko wala man naa ko daal maa koy sante yàlla di leen ci sant ndax yéen a def lépp jërë ngeen jëf. jërëjëf mbokk yi kon fii la ñuy wàcce sunu kàddu kaa bi moo nekkoon ngañ waa numéro bi moo nekk nii waa boobu ma pare su ma paree dañ ko ci def waaw maanaam bii yoon nag numéro yaayam la ñuy jëf ku ko bëgg dimbali dan def numéro yaayam pour ku ko mën a dimbali ci ciment kooku mën a dimbali ci suuf. ku ko mën a dimbali ci xéewal goo xam ne tam danga nga koy yónnee mu mën koo jël ndax lépp lu ngeen ko ci jox fii la koy defaat ngañ mooy ay bëtam mooy ay tànkam gis ngeen di yàlla def waaye li ci ëppoon solo mooy faju gi ngañ wér na ba mu ngi sant yàlla ngañ xam naa ne keroog bi ñu tànk bi neloo nga ba dugg boîte vocale. moom nelaw naa moom. keroog ba dugg boîte. moom damaa nelaw ba sonn moom. waaw keroog kay damaa. ko ay weer nelaw. ay at ngay wax ay at ay dëgg yàlla. sant yàlla waaw. loolu ñaanal Dakar Buzz. Dakar Buzz daal maa leen di ñaanal li bëgg yàlla na leen ko yàlla may lu ñu yut yàlla nañ ci jot. waaw fi ñu bëgg a yegg daal yàlla na leen fa yàlla yegg la yow moom sama grand frère bu baax nga waaw loolu moom yàlla def na ko waaw yow moom sama grand frère bu baax nga maa lay ñaanal yàlla jàmm yàlla jàmmal la daal jàmmal sa njaboot li nga bëgg daal yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal waaw yaa sa waa équipe. loolu ñaanal Dakar Buzz. Dakar Buzz kay man maa ngi leen di ñaanal rek ñaan gu am. commencement waaye amul yemukaay maa ngi leen di ñaanal fu ngeen bëgg a yegg yàlla na ngeen fa yegg ci jàmm ak salaam yow mii maa ngi lay ñaanal yàlla nañ leen séentu yoonu màkka yàlla na nga siyaare kaaba ga yàlla na yàlla dolli fanu dëgg wér di ñaanal sa soxna si nga àndaloon kër ci guddi métti na trop daa fanaanee jooy uuf doomam mi ndeysaan waaw di jooy rek ndax yàlla ak sama doom ji tong tax koy jooy maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm nga ànd ak moom guddi gi bi ànd fa ak moom ak xale yi sedd bi ak ak koor gi wax dëgg yàlla maa ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla. bëggoon lii nag wér maa ngi ñaan nag képp koo xam ne yaa ngi ciy dugalaat sa sa tur ah numéro bi numéro ñaari numéro yu njëkk yi numéro bu njëkk bi ñu jox. maanaam mu def ko ci numéro bi ñu koy def. waaw ñu dañ ko def ci numéro bii ma leen di jox maa ngi leen di jox ñaari numéro ngeen ngeen. dinaa dinaa ko jox ñu def ko ci bar écran. waaw bu soobee yàlla. na sa xel del bu soobee yàlla numéro yi ñu jox moom ci. loolu laa bëgg numéro bu njëkk ba bee ñu joxe woon moom bu njëkk moom. yàlla baax na waaw yàlla baax na. jërëjëf mbokk yi kon fii la ñuy wàcce suñu kàddu ci micro bi Fadel mi ngeen tàmm di gis la cadre bi xamadi la ngañ la li may wax rek Dakar Buzz lu mu ci dugg rek da koy topp ba mu leer jël nañ ko mu metti woon ngeen jàppale ko wanaan dañ leen ko ñëw fa fii la yëf yi tolluwaat ngañ faju na ba wér macha allah mi ngi sant yàlla yàlla yàlla gën a dolli wér gi li des nag mooy jën na ci këru 6 million li des nag mooy eggale chantier bi te ci yéen dong lañ ko yaakaar yàlla da ñëpp am jàmm wéy leen ci abonné ci Dakar Buzz ndax si tey Dakar Buzz mooy fu jaamu yàlla nekk nit jafe-jafe ñu fekk la fa ngir solution mën a am loolu lépp dañ koy jël dëxañ ko jox ko bonne volonté yi ndax cant gi ñoom ñoo ko moom waaye kenn du Dakar Buzz yàlla na seet jàmm yàgg jërë ngeen jëf ak tànk bi tànk bi tànk bi dama bëgg bàyyi ba nu kul fi clôture kër gi ñu door a songu tànk bi kër gi gën waaw mais tànk bi dañ ne woon euh, am na ku ma ko doon yóbbante mais dañ ne woon ko kooku wér na am na tànk ba mi ngi dox. wéroo wéroo waaw te soxla naa ko lool parce que bëgg na maa liggéey. waaw permis moom instant yi moom ma sañoon moom du tëdd. du tëdd day daw waaw nañ oto. waaw waaw war maa am oto. comme que mënatumaa dawal oto bu mag. ñu bu ndaw bu may liggéeyee. nu moo gën waaw ku nga xam naa instant yi moom mënatumaa dawal ci moom xam naa ne mënatuma cee dawal. mais su kalandoo dawal. waaw daw ci dépasse. waa bi di nuyu ñëpp kay. <laughs> jërëjëf maa ngi nuyu waa Mbos. Daara Ndawen Mboseeje Ciise ñoom ñëpp samay dëkkandoo lañ daal falaa jógee ginnaaw yàlla ñëw fii waaw ñu waaw bokk yëpp maa leen di nuyu daal waaw waaw waaw maa leen di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp waaw maa leen di jërëjëf mbokk yi kon ku ko bëgg a jàppale numéro yaa mi ngi ci baaru écran bi boo ko fa yónnee lu mu ci jot dana ci mën a jël jëfandikoo ci def ci li nga xam ne moom la ci war jërë ngeen